slogan lors de la campagne électorale. Vous nous avez demandé de rentrer au niveau de chaque concession. Arriver au niveau de la concession, rentrer au niveau de chaque chambre. Arriver au niveau de la chambre, parler la personne qu'on au niveau de la chambre pour le sensibiliser, la sensibiliser pour les élections. Donc cette fois-ci, on va utiliser ce slogan pour le mouvement navétane. On va entrer au niveau de chaque concession, Une fois qu'on est au niveau de la concession, il faut rentrer au niveau de chaque chambre. Une fois que vous êtes au niveau de la chambre, parlez avec la personne que vous trouvez pour la sensibiliser sur le coronavirus. Je pense que je disais tout à l'heure que nous, mouvement Néotan, Inch'Allah, on a pris l'engagement. C'est pas à partir d'aujourd'hui qu'on va lancer les ESC et que nous demandons l'ensemble des ESC au niveau de chaque quartier, aller au niveau de chaque maison au niveau de chaque maison, entrer au niveau de chaque chambre et sensibiliser nos parents qui sont là. Je pense que nous, la jeunesse, il y a un travail remarquable qu'on doit faire par rapport à cette pandémie. Les jeunes, c'est nous qui sortons, c'est nous qui allons nous parler. Les vieux restent au niveau de la maison. C'est les jeunes qui partent pour amener donc le virus au niveau des maisons. Donc, sont les jeunes, en premier temps, qui doivent sensibiliser leurs les, les autres jeunes Donc je pense qu'avec ce mouvement-là, nous saluons donc l'ODECAV et l'ONCAV qui ont choisi Yoff pour démarrer donc ce, ce lancement. J'avais dit tout à l'heure que, quel que soit le motif, nous nous saluons donc, la zone 6 salue donc le, la décision donc de l'ODECAV et de l'ONCAV de choisir donc Yoff pour lancer donc ce cette initiative. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, nous, au niveau de la zone 6, au niveau des ASC, au niveau donc des supporters et des joueurs, de commencer des demain le travail et de rentrer au niveau de chaque maison qui se situe au niveau de Yoff de les sensibiliser. On nous dit le port de masque est obligatoire. Je pense qu'il faut que nous sensibilisons les jeunes pour porter donc les masques, de respecter aussi les mesures barrières les médecins donc, nous édictent.

des 54% sont dans le département de Dakar. Et on va dire Donc vous comprenez très aisément la maladie, c'est au de la région de Dakar. C'est la raison les efforts doivent être d'abord menés dans le la moitié des cas de au niveau national. Alors, les ASC, comme vous le savez, c'est des C'est la raison pour laquelle le président Amour Khan et l'ONCAV ont demandé à l'ONCAV de Dakar de déployer les moyens humains en mettant en place ce qu'on appelle les équipes de sensibilisation communautaire, ESC, qui vont remplacer en tout cas le temps de la pandémie les ASC pour combattre vigoureusement aujourd'hui euh, la transmission communautaire, rompre la transmission communautaire. Et vous pouvez le faire. Les ASC aujourd'hui sont les acteurs parce qu'ils connaissent le quartier, ils connaissent les habitudes, ils connaissent euh, véritablement tous les aspects sociologiques liés à leur existence sociologique dans le quartier. C'est la raison pour laquelle le choix de ces EEC au niveau des, euh, des, euh, euh se justifie par justement cette, connaissance des quartiers, cette volonté, cette détermination, cette énergie que les jeunes du Néotan ont dans le quartier pour pouvoir ensemble 27 chaînes de transmission. C'est la raison pour laquelle justement l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est que qu'on y mette véritablement une volonté. Qu'on ne déçoit pas le ministre, qu'on de déçoit pas l'ONCAV, qu'on ne se déçoit pas nous-mêmes. Nous avons une obligation de résultat. Ce n'est pas aujourd'hui une fête ou juste une cérémonie. Après le temps de la cérémonie, on reste chez Il faut que les gens se déploient de manière engagée, de manière déterminée, de manière pour qu'ensemble qu'on puisse de manière pédagogique dans les quartiers fexe ba nga xamante ni mooy mas bi génn ci Sénégal véritablement ñu ngi remercier bu baax ministre bi di ko féliciter di ko encourager liggéey bi métti na mais il tient bon et il tient parce que boo xoolee les statistiques au niveau national et au niveau international li mu wane Sénégal ba léegi euh, si réew yi naw si xeex bi si la bokk mais du tere xeex bi ñu gën ko accentuer li nga xamante ni mooy ñun suñu responsabilité en tant que ESC mooy ñu dugg si koñ yi ñun ñoo xam koñ yi ñu ñoo xam gox yi ñu ñoo xam habitude yi fexe def une sensibilisation responsable ni ñu di respecter les gestes barrières di le di surveiller le pour de basque obligatoire su ko defee ñu mën a rompre la transmission communautaire Sénégal mun si génn si jàmm. mooy nuyu Yoff Yoff nag dafa nekk dëkk bu mag moo tax bu ma fiy jël kaddu. dama tàmm njëkk a nuyoo cosaanu Yoff may jël nuyoo bi di ko teg ci loxo jaraaf Dudu Mbeng mu joxal ma ko fere yi joxal ma ko jàmbur yi joxal ma ko magu Yoff tegal ma ko aussi ci loxo imam ratib mais joxal ma ko APEX ci aussi parce que Yoff dafa am na ma bindoo ma ngeen leen di nuyu bu baax di nuyu sama frère représenté fi tey sama xarit monsieur le ministre des sports Matar Ba parce que li ñu def tey dafa wane ne mouvement nawetaan nguuru Sénégal fonk na ko lool waxal monsieur le ministre Matar Ba dama wóor ne bu fi newoon moom moom mooy taxaw fii sama bor mais boo taxawee rek te da ma soññi ba sonn ma ne la maa ngi ñëw maa ngi ñëw loolu dafa wane ne rek soxal la lool parce que am na noonu demee ne ñëw rek fekk la fi mais ba may ñëw xam naa ne woo nga sama secrétaire plusieurs fois ma la si remercier bu baax may yéen président ONCAV Amadou di ko baax maa moom yàgg nañ Mamar yàgg nañ lool ma leen di nuyu di nuyu bàccere ORCAV di nuyu président ORCAV yëpp ak ODCAV yi ñu fi invité tey fii si Yoff tey da ngeen sagal yoof mënoon nañ ko defee feneen mais da ngeen ñëw sagal ma pour ñu defee ko fii actuellement maire Yoff may wax ma leen di remercier li ngeen ñëw lancé ko fii si Yoff ba ma leen woowee ne leen président wax na nee na actuellement mobilisation communautaire moom la ñu war a accentuer ak une bonne communication communautaire communication communautaire laa jël sama téléphone wool te bi ma lay woo xam naa ne yéen a ngi si depuis le début parce que wax nga ko fu ma jëlee kàddu rek ne ma lay le but qui va faire la différence ki koy marqué mooy le mouvement navétane am na bés sama wax am ñu ko jëlee ne ba critique mouvement nawetaan la alors que loin de là dama gëm mouvement nawetaan parce que je un produit de ce mouvement le qui va faire la différence équipe de sensibilisation communautaire yi ngeen teg tey gëm naa ne dañ ko man parce que bi ma la woowee ne la ñëwal ñu waxtaan pour xool naka la ñuy répondre à l'appel du président par rapport à la communication communautaire bi ngeen ñëwee tey dama foogoon da ngeen may déglu rek après na ma monsieur le ministre après ñu dem xool ñëwaat mais sur place ngeen génne concept boobu ma xam ne yéen waxtaan ngeen si ba réfléchir si ba une proposition moo tax suñu convention bi gaaw bon nag ministre de la santé de l'action sociale mi ngi leen di remercier di ànd ak yéen di am yaakaar ne dakaaru foofu la mbir mi ëpp doole di ngeen ko song daan ko fa gëm nañ ne département wu Pikine di ngeen ko song daan ko fa gëm nañ ne département Rufisque même chose département Guédiawaye même chose mais gëm nañ ne tam doo leen yam si ndakaaru rek di ngeen ko song Louga di ngeen ko song Ziguinchor di ngeen ko song Kaolack di ngeen ko song fépp fu mu nekk pour que ESA dugg si kër yi dugg si néeg yi wax ak nit ñi pour que corona bi ñu génn ko Sénégal bon donc monsieur le président man day kontaan naa mais sama xel dal na bi ngeen wàccee si terrain bi lépp loo xamante ne nag yéen a ngi koy sumb ëllëg maa ngi leen di demander ngeen boole si désormais la dimension sanitaire parce que actuellement santé dafa yëngatu rek dëkk bi yëpp taxaw. Bondëk association sportive et culturelle la xaw ma nu ngeen di toogee en laboratoire ba am si lu ngeen si dugal mu ngi santé si biir. incha pour que bu ngeen di compétir dans l' avenir mu am une dimension sanitaire importante parce que les ASC e la corona bi du dem rek ngeen tas ko bu corona bi demee da ngeen koy bàyyi si biir ASC yi ñu ànd ak la direction de la prévention di liggéey pour que Sénégal jëm kanam maa ngi leen